KMTV une chaîne YouTube pour les di indil ay xibaar yu wóor te Assalamu asalaamualeykum mbokki Kër Moussa asalaamualeykum waa Askan Wi commune Kër Moussa Mansour Ciss la chargé des opérations électorales ñëwoon tay di wax ak wa population Kër Moussa askanu Kër Moussa par rapport ak recours bi nga xamné la coalition yewi Askan bi déposé woon na ci cour d'appel pour que yenn yi nga xamné ne constaté nañ ko muy ay fraude moy ay irrégularité lo xamné ndiot ndiaj la ci walu élection yi ñu jàppoon ne dañu wara def recours pour que yoyu bureau de vote yi nga xamné ci la am ndiot ndiaj yoyu ñu annuler ko ban déposé recours bi yalla def na tay tribunal wo nañu pour ñew ñu def atté bi atté bi nak bañ duggé bako juge yi ñuy atte xool càmbaare nee nañu c'est-à-dire baxna ci forme bi manam niñ ko bindeek lañ ca wax yépp baxna mais nak di am regret di len annoncer né bañ démé ba ci fond bi dañ ñu ne preuve yi nga xamné andi nañ ko pour que ñu euh, ñu mën ñoo jox deug preuve yoyu doyul comme preuve yoyu doyul pour mëna annuler ab élection lolo tax nak ñu japp né ñun suñu dossier bi euh, mënuñu coo mënuñu cee mënuñu ñoo jox deug parce que preuve yi ñu andi doyul li tax nak preuve yoyu doyul mëna ci wax lén rek ndaxte amna ci preuve yo xamné dañu japp né jarul ñuy compromettre jarul ñuy ñuy ñuy ñuy ñu ci ñu ci ñu ci gañ doom adama ci intégrité am moo tax ñun loolu dañoo jàpp ne jarul ñu koy def mais nag li des nga xam ne yoon may nañ ñu ko muy buñ la boo demee tribunal tribunal joxul a dëgg yow nga jóg dem ba nga xam ni fa fañ naan fa mbaxane demee doonee benn mooy cour suprême ñun yoon may nañ ñun ñu def loolu li des nag danañu toog ñun la coalition Yewwi Askan Wi bu Kër Moussa xool étu càmbar ko bu baax lépp lu mu laaj pour ñu war ko def ñu ni def ko ndaxte ñun dañ leen a jox cër population Kër Kër Moussa du décision boo xam ne ñun ñoo ñëw jël ko danañu waxtaan ak population bi la nga xam ne moom la ñu yoon may pour ñu war ko mën a continuer suñu combat bi ñu continuer ko incha allah te loolu ñu ngi leen di ñaan di leen déglu tamit di leen may xel bu baax ndaxte bu tey jii buñ fi yegsee tey jii yéen la yéen a soutenir ba fii nii ñu yegsi tey jii ñu yeg ñu yegsi fii di wax ne combat démocratique bi nga xam ne am na Kër Moussa mën nañu wax ne c'est la première fois mu am fii Kër Moussa ñu yegg si ba fii nii kon nag lii day wane ne population Kër Moussa pare nañu pour que li nga xamoon woon na mu won ni di leen jaajafal bu baax di remercier ñi nga xam ne déplacé nañu ñëw tey assister audience bi muy waa yeewi askan bi ak ñeneen ñi nga xam ne nekkuñu yeewi askan bi te ñu ñëw fii teew te Kër Moussa rek ñor leen ñu leen di remercier bu baax ak ñi nga xam ne bëggoon nañu ñëw ndax tey altine la tombe ku nekk yaa ngi war a mën a dem xëy liggéey moo tax ñu leen remercier ñi ñëw dagg seen i tey ñëw ak ñi nga xam ne amoon nañu yéen a ñëw mais finalement mujjeewu ñëw di leen jaajëfal bu a baax Voilà, euh, population de Kermoussa, euh, c'est Mohamed Mansour VI, le chargé des opérations électorales de Yewi Askanui. Nous sommes là aujourd'hui pour parler du recours introduit par la coalition Yewi Askanui lors des élections précédentes. Parce que nous avons introduit ce recours dans la mesure où nous avons constaté qu'il y a des irrégularités, qu'il y a des fraudes commises par la coalition Bernobok Yakar pour euh, remporter les élections. C'est la raison pour laquelle nous avons introduit ce recours pour permettre à la Cour d'appel statué statuer en notre faveur. Aujourd'hui, on est venu pour ça et que la Cour d'appel euh, nous a convoqués et à l'audience, elle a déclaré la, recette, la requête recevable, c'est-à-dire recevable sur la forme. Mais sur le fond, ils nous ont débouté du fait que les preuves étaient insuffisantes. Euh, c'est l'information de taille qu'on voulait donner à la population de kermousse Mais aussi pour leur dire que le combat continue. Parce que nous avons d'autres voies de droit mise à notre disposition pour nous permettre d'aller jusqu'à la Cour suprême et de déposer un pouvoir un au niveau de cette Cour. Euh, cette voie de droit, nous allons nous concerter, euh, la coalition Yéhu Askanui, au niveau de Kermousse, pour essayer de voir quelle est la conduite à tenir, si on va continuer le combat ou bien si on, va utiliser d'autres procédés, par exemple des moyens politiques, pour permettre d'accéder, pour permettre à la coalition de revendiquer la victoire qui est déjà acquise. Maintenant, nous ne pouvons pas terminer sans pour autant remercier toute la population de la commune de Kermousse. Nous remercions aussi euh, ceux qui sont déplacés pour venir aujourd'hui assister à l'audience, pour nous prêter main, forte. Parce qu'aujourd'hui c'est lundi, ils ont laissé leur travail pour venir soutenir la population, pour soutenir Yévi Askanoui, mais aussi soutenir Kermoussa de façon globale. Mais aussi ceux qui avaient l'intention de venir et malheureusement ils n'ont pas pu avoir le temps de venir assister à l'audience. Nous le remercions au fond de notre cœur, nous la coalition Yévi Astani. Le combat continue. Nous allons essayer donc de discuter après sur quelle méthode nous allons aborder la suite du combat. Je vous remercie beaucoup. KMTV, c'est une chaîne YouTube pour